di nuyu également sunu camarade yi nga xam ñoo seq xeex bi pour Sénégal parce que ñun réew mi rek moo nu ñor ñu nekk ci société civile bi ak ñu nekk ci politique bi yëpp nga xam ne ñoo ngi fii taxaw nekk ay kilifa ci réew mi ñu ràññee leen jar ñoo lim. di wax ni tey xol bu jeex laa ñëwee fii ci conférence de presse bi ndaxte ñun ku ñu xam xam ñu suñu diggante ak professeur Cheikh Omar Diagne. ndaxte sunu coalition bi nga xam ni moom lañu yore ci société civile lu ci ëpp sunuy def sunuy activité ñoo ko doon bokk ba tax na sax jàpp bu mujjëm bii nga xam ne moom lañ ko jàpp nga xam ne ñun ñoo defandoo woon conférence de presse bi ca weer weenu génn ci deux mille vingt bi muy mois de mars man ak moom ak Clédor Sène mii toog ñun ñoo toog waxtaan gis ni réew mi li fiy dox mënatul a continuer jaay doole bi ëpp na comme nan ko defe woon deux mille vingt et un ca même place ba lan ko defe woon waaye deux mille vingt et un bañ ko fa defee ñun ña ko defoon ñun ñëpp lañ bokkoon jàpp waaye bii yoon parce que coow moom mu ñëw ni man sax daanaka aw ma mbuj ak Clédor seen wax nañ wax ji ba pare léegi kooku bu ñuy jàpp kay xanaa ñun Clédor seen wax nañ wax ji ba pare léegi kooku bu ñuy jàpp kay xanaa ñu njëkk a wax lan njëkk a wax lan war a jàpp bu ñuy jàpp ku ñu war a jàpp ñu njëkk a wax kay lan war a jàpp kon dafay Cheikh Omar Diagne lan ko jàppee du lan fa wax kese lan ko jàppee woon bi élection législative yi jubsee parce que élection législative dafa jub si rassemblement pour la vérité nekk ci benn pant parce que Cheikh Omar Diagne dafa xam ne Sénégal li ëpp ci parti yi fi nekk sénégalais yi gisuñu seen bopp ci ñoom parce que waxuñu ak ñoom parce que ñun bu dee dañoo wax ne ay wëy ngëm lañ dañoo gëm suñuy diine te diine ji buñ ko sëlmoowul mu nekk ci suñuy ven kon waruñoo heure bu ñu bëggee wax ci réew mi summi sunu sunu diine diine du lu ñuy summi Cheikh Omar Diagne moom du summi diineem moom diine islaam la gëm lépp lu muy def ci loolu lay sukkandiku te loolu la ñu yàlla subhanahu wa taala digal kon professeur Cheikh Omar Diagne li muy def loolu la jullit bu ne war a def mu taxaw lépp lu muy def ci àdduna mu jiital ci yàlla subhaanahu wa taala comme politique mooy defar àdduna mais mun ta teg yàlla nee di def leneen mu ne moom partem da koy sukk na ko xam-xam bi am na gëm bi na ko te sénégalais yi dañ koy déglu parce que bëgg nañ Cheikh professeur Cheikh Omar Diagne léegi nag ñu ne kon Cheikh Omar Diagne bi buñ ko fi bàyyee mu am doole bu fi dem élection législative dana bari député bu demee élection présidentielle bu gañewul mën a dem deuxième tour lool la ñu ragal a Omar Diagne kon lii mooy wax ci dañ koo jàpp parce que dañ koo ragal professeur Cheikh Omar Diagne question yi muy adressé di ci wax teg ko ci diine teg ko ci li yàlla subhanahu wa taala mi nu sàkk parce que ñun réew ñëw ci àdduna pour suñu coobaree bopp yàlla moo nu sàkk ñu ñëw fi war fee def mission war a dem ëllëg mu war ñoo àtte ci liñ fi def kon loolu la Cheikh Omar Diagne suuraale maintenant nag mu jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk le nouvel ordre mondial parce que Cheikh Omar Diagne question yi muy yi muy teg ci table ji ñi nga xam ne ñoo fi nekkal le nouvel ordre mondial loolu tax Cheikh Omar di mu teg day déranger les partisans du moo tax jàpp bu njëkk bi su ngeen fàttali ko ca Walfadjri la amee ci plateau boo xam ni moom Cheikh Omar Abdou Karim Gueye ak man ñii ñun ñoo fa nekkoon ak journaliste bi lan lañ doon waxtaane le projet de loi pour la criminalisation de l'homosexualité kooku day déranger le nouvel ordre mondial ñu jaaree ko ci Djibril War ni ko wooteel gaaw pour ñu wut prétexte pour jàpp ko parce que kii li muy wax lu garaaw la ñun ñëpp lañ doon wax lu garaaw la mais lam jàppoon à l'époque mooy ñun ñu nekk ci plateau bi moom moo ci am parti politique boo xam si mi ngi jéem a xëccoo réew ko bloqué tout kooku dugg saaga ko pour provoquer ko Cheikh Oumar Diagne ci ci ci kii na ko yow sax bugguma laa fekk parce que su ma la fekkee damay def yëfu mbaam comme yow parce que boo taxawee sa moroomu góor nga naan ko dama lay def ni jigéen ça veut dire que saaga nga ko xas nga ko ku xam Cheikh Omar Diagne xam ne borom fit la mu fayu ñu xëy ñu convoqué ko convoqué waa ji ñu dem déglu leen ba noppi katooñ ñu bàyyi ko mu ñibbi moom jàpp ko ci kaso lii moo am beneen bi lan moo am imam Ndaw génn àdduna ñëpp gis ne imam Ndaw man toog naa ci plateau mu nettali ci kanamu Sénégal yëpp toujours Walf Fadjri émission koor gi salon d'honneur moom lañ invité invité moom moom Imam Ndao mu nettali li nga xam moom ca kaso ba ba Sénégal yu bëri keroog biñ biñ dañu biñ paree émission bi dañoo jooy bi nii tëdd mu metti ñëpp mu nettali li mu wax ni moom ba mu génnee ci kaso ba léegi ca la wér gi yaramam ca la yaramam su tante bi mu génnee ci kaso beeg léegi loolu la Cheikh Omar Diagne fàttali Sénégal xam ko moom waxal boppam moom Imam Ndao ni moom kaso bi mu ci génnee ci la xam ni addunaam yàqu waaw loolu la Cheikh Omar Diagne fàttali est-ce que loolu lay waxi Cheikh Omar Diagne la ñu jàppaat ko ci ci beneen jàpp boobaat comme ni ma ko waxee élection yaa jub si woon ñu ut prétexte boobu beneen bi mooy jàpp mujj bi comme ni ma ko waxee ñu ni léegi atteinte à la sûreté de l'État appel à l'insurrection mooy seen chef d'inculpation tappale yooyu bu ñu la bëggee jàpp ci tappale la ñuy jaar pour jàpp la te yëpp kenn du la jugé koo dégg ñu wax ko des menaces de trouble à l'ordre public Euh, diffusion de fausses nouvelles euh, euh, appel à l'insurrection kenn du la àtte parce que dañ koy yóbbu instruction juste pour pour pour y mettre la forme pour rek yow nan la téye dun la bàyyi nga génn ba jamono bu leen neexee ñu bàyyi la nga génn mais amagul ku ci àtte nañ ma wax kan lañ ci àtte gun Sénégal kenn lañ ci dul àtte dañ la ci téye loolu sax les droits de l'homme les associations des droits de l'homme war nañoo taxaw ci loolu parce que loolu mënul continuer sénégalais bu taxaw wax xalaatam ñu ne ko tu as fait un appel à l' insurrection pour téye ko six mois bu njëkk lañ doon wax six mois léegi gis nga Cheikh Omar Diagne mi ci juróom-ñetti weer kenn kenn instruire dossier parce que dossier bi service à rien heure bu leen neexee ñu war a toog ñuy seetaan pour ñu bàyyi ko mu bu ko neexee kon nag na sénégalais yi taxaw professeur Cheikh Omar Diagne loolu la ñuy xaar ci sénégalais yi na ñu am taxawaay parce que Cheikh Omar Diagne engagement am sénégalais yi moo tax mu koy def keneen taxul mu koy def parce que Cheikh Omar Diagne boo toogee moo waxtaan moo xam ne kenn gënu ko bëgg réew mi waaw c'est un patriote hors pair bëgg Sénégal am xam-xam sénégalais yi bëgg ko kon nag sénégalais yi tax mu doon am taxawaay boobu nañ am taxawaay ci lii nga xam moo ko dal Cheikh Oumar Diagne dafa génn ci kaso bi dañ koy jaay doole ñetti jàpp yi ko jàpp yëpp ci ñaari at yi xañ ko njabootam xañ ko ay soxnaam xañ ko ay doomam xañ ko ay mbokkam xañ ko waa parti pour le rassemblement de la vérité donc kooku du yoon na Sénégalais yëpp am taxawaay pour Cheikh ma Diagne ñu bàyyi comme nañu war a bàyyee ñëpp parce que Abdou Karim Gueye Bayna Gueye ak Omar man jàppandoo nañ ma ak ñoom ñaari yoon xam naa li nekk naan ak ñoom xam naa ni xalaat day xool ñu am jàpp na ne bu leen jàppee euh, mobilisation yi dina wàññeeku mais jàpp leen pour dañoo def dara mais daa jàpp ni ab Sénégalais nag am na droit taxaw pour xeexal réew mi pour démocratie bi gën a dëgër ñoom defuñu leneen loolu rek lañ def kon nag ci gàttal lii nga xam ne moo xew ci réew mi du yoon kenn waru koo nangu professeur Cheikh Omar Diagne mun ñoo taxaw di ko nit ñi toog di seetaan sénégalais yi dañ taxaw exiger Cheikh Omar Diagne génn mais comme ñu ci jamonoy parrainage numéro deux cent six mooy numéro professeur Cheikh Omar Diagne nañ ko parrainé nañ ko parrainé massivement Cheikh Omar Diagne nañ ko wutal lu mu gàtt gàtt cinq cent mille parrain pour ñu won leen ni Cheikh Omar Diagne mii kenn mënu koo tee nekk candidat parce que ñoom candidat yan jàpp man jàpp naa ne ñooy candidat nar a jiite réew mi au deuxième tour ku jiitu ci ñoom ña ca topp ci ginnaaw loolu ñoom ñett ña nekk ca prison Cap Manuel jàpp naa ne ñoo ëpp doole ci candidat man candidat laa mais ragalu ma wax dëgg loolu mooy dëgg mais loolu mooy dëgg candidat ya fa ëpp doole lañ dem jàpp man ñan lañ jàpp Ousmane Sonko lañ yóbbu euh, Cap Manuel kan lañ jàpp Basirou Diomaye Faye mi topp ci moom mi yaakaar mooy dem kan lañ jàpp Cheikh Omar Diagne ci réew moo am ni ñu ëpp ca waa réew ma dañoo dañoo tënku ci diine te moom diine la gëm kon kay ñetti candidat yu ma ngi lan jàpp loolu mooy dëkk kon nag réew mi nañ taxaw ci ginnaaw candidat yooyu ñu